un matériel électroménager de haute qualité, résistant, robuste et simple d'utilisation. Choisissez Westpool. Coco Pulp, un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Unifie et illumine votre peau tapis rouge Fatina maninam. Indilène et spécial promotion à dire. 100 Moussou 100% naturel de femmes et épices yu Moussou, <laughs> Ken Papoumada antiseptique nature à classique Moué Karangibouo. Kouma et frère dañuy de promotion spéciale fin d'année Kouma et frère roy de nuroog pire Word Cola quoi La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Existe aussi en bouteille plastique 100 et 30 centilitres. Qualité Soboa.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 100% Caro White. Caro White, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Dream. wa Sénégal nous ñu rouge Position meuble yu ngeen mësul a gis promotion foire 2021 bi xool yi les chambres à coucher ni mu taaroo di jar 1 million 200 tapis rouge di leen ko 999 000 may la matelas haute densité ak moquette lii mooy seen cadeau fin d'année tapis rouge yamul foofu am nañu ay chambre à coucher complète à partir de 650 000 ñu may la ay vaisselier wala table à manger ak 599 000 tapis rouge jaay le salon de qualité mais xoolal ma bi salon de marque Chanel

sama jëkkër man maay préféré ndax ay produits baara mosul laay toggee dañoo naturel set te <laughs> baax ci wérgu yaram. dañoo naturel te baax ci yaram. man ceeb bu jën mooy suma plat préféré. <laughs> man la Bintu Thiam sa baara luy baara mosul. mooy femme préférée. ah femme préférée xar man Bara moy suma épice préférée. <laughs> Bara 100% naturel de am ay épices yu net poivre tout laaj piment lépp lo xam da di saf-safal kon Bara <laughs> ken du Faites de la place, la nouvelle gamme West Pool arrive. Retrouvez l'envie et le plaisir. Profitez d'un quotidien plus agréable. Un matériel électroménager de haute qualité, résistant, robuste et simple d'utilisation. avec des prix qui défient toute concurrence. Faites des économies et améliorez votre quotidien. Un renouveau pour votre foyer. Retrouvez la beauté dans votre maison. Soyez vous-même avec Westpool. Pour eux, pour vous changer de cap, faites-nous confiance. Choisissez Westpool. Un style de vie qui s'adapte à vous un confort sans limite qui vous attend chez vous. yeen waajur yi bëgg bëggal seeni doom chez maman Diwane ubbil na leen ay buntam ay boobu pour enfant yu tendance dalu xale yi nag liir yi seen berceau yi sax dafa tendance mag ñi sax dañu fay sañse ba mu baax ay costume pour adulte héros xale yépp ña nga fa ay vélo pour enfant chariot pour enfant ay cuisine pour sa doom di jàng togg am tamit ay panier basket ay robot. ay drone ay salon de coiffure ay laboratoire ndax ëllëg mu mën a doon chercheur Scrabble Monopoly lépp lu xale yi soxla maanaam ay jeu yoo xam ni yi day yee yi ak maman diiwaan ana jeeg ji nga xamante ne ñoo bëgg lu baax bëgg bu ñu taajee seeni bërëm kër kontaan daagu leen nank ngeen dem seeti maman diiwaan ndax seen ay aajo fajo. lépp lu am solo da nga ko fi fekk ci diiwaan ñi ngi nekk cité Soprim extension numéro 342 rond point case ba am na ca 88 avenue Lamine Gueye rue Grasland bu ngeen fa demee da ngeen fa fekk Mariama Diwane. woo ñu gaaw ci 77 532 07 80 wala 77 800 96 00 69. waa bii kii kan la sa turandoo la suma turandoo lu muy def fii ana yaayam bu police jël si ko moom daal dafa sàccoon xaalis bu bari jiñ ko keneen complice bi nag moo ko boole. ay waay lii dal soxna ba du jàmm moom lu tax mu jox la doom ji. nee na sama rakk la sama deret la suñu neexee dañu lekkante suñu biir sama turandoo bii yàlla rek moo xam lu ko indi sama loxo dinaa ko yar dinaa ko yore te dinaa ko jox sama juróom-ñaari jikko Ma, ini maki te. Ini de, ba mati ko. Maki te. Bebê mamãe, Bebê mamãe caabi kër la sama bàyyitam soxna ba tool nag nee na nga dimbali ko rek nga bañ ko porter plainte parce que boo ko porter plainte dina gën a dugg naka jek ma xam khalis bu beuri bi mu yoron diko passer pasar ci soirée yi ngenté yi ndekete khalis bobu momu ci dara da ko sacc ndeysaan du ko yoram sax copine ci la nek nekk yaa ngi am lila la sa numéro bac bi laa la indi yow ni nga xeewee sama numéro bac envoyé nañu ko sama numéro bu yàgg. Eh, Bigé. <laughs> Malal. waa Bigé sama gu nopp naa saf de dama ko may. dama la koy may loolu moom dama siy sawar léegi léegi laa koy def sax.

<laughs> maral kañ nga fi am doom tuddee ma ko te yëgu ma ko waaw ah, kii sa doom la yaa ko jiw ci farata yàlla ak sunu Muhammad loolu nu mën a nekke doomu Alima France la juddoo préparé nag

kan umur loh Es go bimbingan wakal sana Kamu kapan? Kamu dara Jangan gerak lah ya Kayak mau Nah aku malah deh Saya? Yaa ngi ma doon wax ci sa mbir dama bëggoon nga dalal sa xel borom waxul waxul waaso banni aadama la wax kon joxal sa doom ku la doy te bu ci xool waaso waaye xool ci diine xool ci jikko sunu sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam na doom bu góor Ibrahima lañ koy wax mu teel a génn Ibrahim moom soxna si ko jur tudd Maria ab chrétien la woon kon may leen xale yi ñu sëy aw yow rek laa ci gis honnêtement kenn du joxe bopp rocc ci làmbe baax noonu dana baax insha allah dana baax tard que jamais. Allô Hey, Vigue. Ouais, félicitations, vraiment félicitations. Yal na la jik, yal na vraiment tu le mérites. Parce que nous, kan la quoi, jàng kan la. Bon, xamoon naa li nga dagg bag bi. mais t'inquiète pas de toute façon euh, je te rappelle après. parce que yow ku le cadeau quoi. waaw d'accord, amul ok. Super ça. Très bonne nouvelle. Bagou, lay def fii. te da nga mon ne man ay yére lay jaay dama xam lu rafet. d'ailleurs sax jour mariage bi maa lay tànnal li ngay sol. yow ni nga Djengere. Non, pas ça. Non, il doit y avoir robe de mariée, ça. Ah, ok. Mais, pas une année finalement. Ah, non, vous nous mouillez. D'accord, non. Pourtant, nous avons dit léegi nee nañ fii ak fin du mois dinañ may. bébé. félicitations future madame Tian. merci félicitations. An baki gis? mais boy am na benn affaire bo xamné ne na ci si waxtaan ak yow l'autre fois temps bi moo ñu ko mayul mais bon aujourd'hui je vais en profiter pour te le dire Simone hmm? dama la bëgg a takk parce que ce mariage de. mariage du parce que déjà yow ak sama rak hmm. donc je suis conscient que mon suis mariage <laughs> ah non. mais le problème est que les musulman man chrétien te man fas ma vie sama diine bébé gis nga live bi rien n'est impossible tu sais pourquoi ce qu'on va faire dañuy def li alcorane wax rek li wax la def lakum dinukum waliya din. Hmm? yow sa diine Bukan sama dia lah. chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Existe aussi en bouteille plastique 100 et 30 centilitres. Qualité Soboa. le rythme effréné du quotidien, on a toutes besoin de souffler un peu. Les soins Day by Day Women subliment votre peau pour longtemps grâce à leurs actifs cosmétiques. Reprenez du temps pour vous. Découvrez toute la gamme de lait pour le corps Day by Day Women. Ah, voilà, on s'en va.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 frère, dany def promotion spéciale fin d'année Events S1 bidonjer 54 000, Légué 48 000 francs Donc les gars Events K2 Bidonger 45 000, 33 000. Events V13 40 000, Légué 34 000 les Max 9 events 55 000, 33 000. RFA Halo Pro 4 78 000, Légué 63 000 rek nga Halo 4 70 000, Légué 60 000 dong les Techno Camon 15 85 000, Légué 75 000. Technospark 5 Pro 90 000 Legi 80 000 Dougie Mix 2 170 000 Legi 110 000 Dougie Mix Light 70 000 defal nañ 55 000 képp ku Ben de téléphone ñu may AirPod dernière génération Koloban. Grand Yoff Jano ak église Saint-Paul rond-point Kermassar, marché central Boutiès Akmour. 77 565 66 77 Ou le 33 823 81 20 Nous Fiti Fidagbi foire internationale national de Dakar Diallo ak pavillon orange Rouma et frère roy du nuroog pire Abdou Nafi sen papa wàcc na yéeg leen ñu wajal dem sédi sen ma. mu gis ngeen ni ngeen salte xamna fess ngeen del ak microbe waye Amna sama solution ak Sabu mada antiseptique gaaw leen dem saabu antiseptique Madaar moy saabu bi setal sa yaram di rey bepp microbe te nek kaaraange bu wóor. saabu Madaar antiseptique nature ak classique moy kaaraange bu wóor ci sen njaboot. voilà inshallah allah. ngone lamine da fay jógee Italie waaye dafa bëggoon nak bu ñëwé ñu mur ko mu dem sey euh ah, ki di biige nak mom jappal nañ ko bëssam ba nopi ma di leen xamal ni lepp tek tek naa ko ci loxo Allah mi ndax man daanaka sama walu wayna fim ne ni lu dul dem dekk ba euh jox len conseil toppatoo sama njabot donatul sama yitte ma di leen wax ni ngeen don ben yeen ñepp sa defe naa lu dul rek jàmm ci gën te bu leer yalla taccio bo feccul doto fecc ma bëgg ngeen doon yeen ñepp ñëpp. jox man de len rek moy sama bëgg-bëgg moy kër gi mëna continuer malal kër gi ya ko jënd ya ñu dëkkal bu ma sañoon nga ñew dëkk fi sunu wet tabax fi fi yaatu na bu ko defee lowen mëna continuer waaw deug la wax deug yalla kaddu yu rafet na torop et eh, amana amu sax luma ci wara dolé ndax kilifa yi wax nañu bare paré nak comme digal mom jëfé rek la sante dina ko défé bu soobé yalla ngeen ko bëgg inshallah rabbi soobé yalla lool rek lay xaar ci yeen buma ko waxé won ci sama début wax rek ngeen gor gor lu doon ben inshallah rabbi kaddu yu am na solo moom kañ ngeen may maye dama. lii ku ne neexul. da nga bokkul. baa nga bëgg bokk kenn boole sa fii di xasan moo yaw sa fii di xasan eh sa fii di xasan. gis naa la ci guddi yi yàgg si jafe-jafe yi tar. àdduna bu lëndëm leer na ma ne ancien caga nga war eh wax naa la sama wax nag nga may jaay reewante mais li ma la wax nii yàggatul dara di nga ci teg sa bët. moo sa sa bopp xool génne fi yow. Al-Quran terus. kamu kumain tak menang. jeex na de. da que sama tay baas bi ni ma la ko waxee nga ko defee tay baas bi mbaa toog naa. xoolal dàq ni nga ko bëggee woon laa ko defee may ma tuuti ma yeggal finition yi te ñëw. ko muy wax kii ni mu mënee tardeel ñaw. naanal rek ma ñëw. nga yaakaar ne maar mu delloo woon mareetu ayam balaa yàlla di ko ko delloo gënul woon. yow pour yow problème bi maar la problème bi du maar ndax maar lu neex jabaram ak doomam rek a ko yóbbee lii lépp ah. bëgg-bëggu jabaram ak doomam maar li soxna Boto doon def lépp mu ci doon teg tànkam ñu koy manipule comme xale anamu tey ba mu jaaxlee fan la dellusiwaat si tànku aawoo. yow koddu pour yow li fi xewoon yëpp dafa naturel yow ku xool maar ni mu doon doxalee ak ñun nga war a xam ne maar li muy def tayu ko ndax lii sama yaay waxoon nañu ko depuis le début ne woon nañu maar bu duggee si jigéen bu bon dina ko détourné ndax maar dafay jàpp ne ni muy doxalee la ñëpp di doxalee. man sëy bi si jëm boppam laa gëmul mu am soxna Bator dafa capable. ban sëy nga may wax bu bigee ak badu mooy am jàmm ak salaam. yow soxna Bator sax. leer na ma ni waa kër ñoom Badu yi bañ njëkkee ñëw ñaan si moom moo dem si nopp maari wax ba yàq ko. sëy bu yàlla bind ci aras pexe jaam nu ci dara soxna def na lu bonam ba yàlla wan ko boppam moom kay nañ ko ñaanal rek mu sori ñoog jàmm ak salaam. yow xamoo soxna mu nekk mën na faa nekk def li muy def ci biti. koddu nag bàyyi ma de soxna comme que mi ngi fi mu ne nañ ko ñaanal rek nañu sori. li may naan nii moom lu mu doon lii neex na di. li may wut ko la bi waa suba waa ñoo ko defar neex na yomb na te goût bi dafa tellement meilleur foo dem fekk ko fa. waa nga yaakaar ne cadeau bi mën na woon a jëndal bii ngeen du ma ko bàyyi jënd wut kola bi en tout cas daal lii mën naa teral gan de. waaw man lu ma si jaaxal dama am course yu ma war a doxi. yow loolu day problème. yow gérer li ngay gérer nga bàyyi ma man ma dem gérer wóot kola bi i wuy ma wàcceel ma ci koñ ba camion wóot kola réew mi yëngu foofu tol soxna ba am na bu lay indil añ dafay ñuul njool mu toog si suuf wàccal waay Paco hmm? soxna Batoor ñaata la la fay. soxna Batoor fayu ma dara de. soxna Batoor fayu la. Hmm? yow nga complété ak soxna ba ngeen dugal ma si biir jeel bi nga ne ma fayu la silence xamul nga ne dinaa génn mais eh, grand barki yàlla laa lay waatal nii grand li ma lay wax nii dëgg la de man maa dem témoin contre soxna ba tóor moo tax nga génn mais man damay delluwaat fan si kaso bi soxna Batoor dama koy rendi kan dama koy rendi la la wax. nek la nan nga meuna a ko xamni mi ngi ci biir kaso bi. loolu sa problème loolu samay problème la. jógalutal ma cigarette waaye. waaw boisson bii nag laa doon war a wut cola bu bees bii xew bi de dina wàcc. mariage bi dina wàcc. soxna si na def. ça va sëñ bi. wut cola moom produit bu baax la consommateur yi taamu nañ ko loolu de. kay wax loolu man boisson bi nga xamante ne bi ma ko ñamee ba tey laa tàggali koog sama sago. waaw sa boobaa xaw ma fan lañ jëma buñ ci yu baax. su mu ngoog moom loolu mooy mbaaxam. bilaay. wut cola moom am na ñaari forma am na bu mag am na bu ndaw. bu mag bi deux mille cinq cent la bu ndaw bi deux mille. xoolal bu ndaw bii. nga may wàcceel cinquante ba xay wala am dina baax. Moussa kay wàcceel ko kay ñëwal fay fii. buubi defoo ko yëpp ci àddina nga ne danga ñëw te ko ma añ ma ne yow yaay ñëw fii di ma seet si soxna yaa ma gën a dof foofu dafa am dof yu baax am dof yu bon te dof yu baax yi ak dof yu bon ñoo ngi si biir nit ñi ñii taxawaalu ci mbedd mi dañoo wéradi rek sama doom may naa la ko ay xam naa la laaj te bëggatuma kenn ku ko woowee faala dama bëgg ñu koy woowee Marietu Lo ndax Marietu la tudd incha soxna dinaa la ko téyel te dinaa la ko yaral dinaa def ci moom ay jikko yu baax wóolu naa la ci aw ci benn xel ñaar ndax man xam naa la xam naa nit ku baax dañuy maye sa doom bii fan yii di ñëw incha te yow laa ko ndeyale soxna teraangay dina la fekk si ak foo mën ci nekk Un matériel électroménager de haute qualité, résistant, robuste et simple d'utilisation. Choisissez Westpool. Coco Pulp, un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Unifie et illumine votre peau tapis rouge dafatina Maninam. indi et spéciale promotion à baaramuso 100 naturel de femme et épices yu baax baaramuso <laughs> du mom. antiseptique nature à classique Moué Karangibouo. Kouma et frère dañuy def promotion spéciale fin d'année Kouma et frère roy de nous pire quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Existe aussi en bouteille plastique 100 et 30 centilitres. Qualité Soboa.